nee na benn bis nag mu jëndloo ko sàngara ngir bu demee ba euh, Sénégal mu fay ko da koy lebal daal da koy lebal jëndal ko sàngara bu ñibbisee mu fay ko nee na ma dem wutal ko li mu doon wut bi ma ko waxee sama borom kër na mu ne ma tuural ko tuural sàngara si ndax jullit du jënd sàngara muy laaj nag luy àtte sharia ci jëf jooju hmm. loolu ko borom kër bi wax de mooy dëgg loolu ko borom kër wax mooy dëgg ni muy laaj day mel ne moom daa nekk France am ab chrétien bu nekk Sénégal ne ko nag ma jëndaaleel sàngara àndaadeel ma ma ma ma ma jox la ma fay la daal mooy kon yóbbante la da ko yóbbante daal joxu ko xaalis waaye bu jëndee ci xaalisam bu ñëwee moom mu delloo ko li ko borom këram wax mooy dëgg waru ko koo defal waru koo defal ab jullit du jëfandikoo sàngara du ko du ko wutal keneen itam ci genn anam du ko ci dimbale ci genn anam suñ Cheikh kii day laaj mu ne lii lenn ci waa réew mi di wax ne jigéen bu njaaloo ay daam ñeent fukki fan lay doon mu ne ndax loolu wér na sénégalais mooy lan moom sénégalais te ne ko ci àtte àtte diine moom duñ ko jële ci sénégalais wala ci saoudien wala ci égyptien waaye ci borom xam-xam lañ koy jële ci borom xam-xam Euh, ante atteb dina dee su ko jële kon ci ay sénégalais walla ay waatuwaa Touba wala ay waa Mbàkke wala wala nit ñi walla yu mel noonu li am mooy ku njaaloo jigéen ju njaaloo daa war a laablu laablu baatu idda bi sax duñ ko tuddee idda idda moom ku jóge cib sëy lañ koy lañ koy la ñuy wax la muy def waaye laablu la lañuy wax mooy dana toog ab diir daal ngir ñu xam ndax jëlee na ca dara wala déet loola nag day nuroog idda ndax mooy diir bi kiy jàpp idda di toog moom lay toog moom it xay na moo tax mu tudde ko idda waaye duñ ko duñ ko tudde idda daa nuroog kuy jàpp idda rek waaye laablu lañ koy wax kon dana toog diir bi nga xam ne kuy jàpp idda moom lay toog dana ko toog bu ko toogee nag ñu gis ne àndut ak dara kon léegi mën nañ koo maye boo bokkoo nit ñaane mën nañ ko ko may ci biir buñ gisee ne dafa ànd ak dara nag day wëy toog ba lam àndal euh, génn mooy bam ba am doom bu dee dafa ëmb day toog ba am doom ñu door ko sañ a may keneen kon laablu gi day dem ba mu am doom laablu gi door a jeex bu jeexee nag lañ koy door a sañ a maye bu dee kenn bëgg na ko loolu kon lañ ciy wax waaye du ay ay fan naan ñeent fukki fan ak fanweer fan ak yooyu déedéet waaye ki jàpp idda daal na mu ko doon jàppe moom mii nga xam ne dafa njaaloo it buy laablu noonu lay laabloo ku njaaloo wut sax waaye moom it séq na ak ku dul borom këram ba tey day laablu mooy kuñ siif jigéen juñ siif kiñ siif njaaloo wut ndax defu ko coobareem waaye nag séq na ak ku borom këram kon moom it war naa laablu war naa toog ab diir bañ xam ndax siif gañ ko siif dara topp na ko ci walla déet loolu dañ ciy bañ jaxasook askan yi dañ ciy bañ ndax ku seq ak nit ba noppi ñu mayewaat ko te mën naa am am na lu ko ci toppee woon loolu jaxasoog askan da ciy amee moo tax rek sëñ Cheikh mbokk mi day laaj mu ne laaye ji lu muy tekki wala taziru waziratun wizra uxra waaw loolu ci gàttal rek mooy nit deesu ko jàppe bàkkaaru lu keneen def moom defu ci dara taqiwu ci dara moom doonu ci sabab doonu ku ko ci xiirtal doonu ko ko ko xamal yoonam nekku ci keneen a ko def kenn du ko ci buggal moom am na feneen fa alquran di wax ne wa an laysa lil insani illa ma saa maag wala taziru waziratun wizra uxra ñoo bokk lu ñuy firi mooy nit kon euh, du gàddu bàkkaar bu keneen def li mu def lañ koy fay sëñ Cheikh waaye lu keneen def day soo ko fay bu dee bàkkaar hmm, kii day laaj mu ne lañuy tuddee jotu ci wàllu koor nan lay toll ak koo xam ne nii dafa war a dafa war a dafa war a jotu ndax ak kooram dina wér bu fekkee joxiwul aw ñam am des mi xaw naa hmm. jotu day dañ naan dañ eh, koy waxee dañ naan liibar ak xaaju genn wàll liibar <laughs> maanaam daal dañ naan six cent vingt-cinq grammes daal lay tolloon 625 grammes ci li waa gox ba di dunde bëre fi mën nañu wax ci ceeb 625 grammes yi ceeb moom lay génne bis bu mu bu mu ko war a génne bu ne mu génne ko ci ki nga xam da ko war a génne génnewu ko nag mooy mooy ki nga xam ne daa fay ci misaal xam naa ci fay la ci jublu kon ci am boru koor fayu ko ngir càggante ba koor gi ñëw bu koor gi jàllee ba muy fay borub daaw bi da caa war a boolewaale fidya xëy na foofu lay waxe bu fekkee nag fam ca war a boolee fidya nag woor na te boolewu ci fidya ndax dana baax dana baax day ñaar yuñ ko sant mu def lenn li defut la ca des waaye dana baax koor gi dana baax fidya bi ñu ko sant la defut waaye teewut koor gam fay moom dana baax hmm, suñ seex kii day laaj mu ne juum ci jullig naafila ndax moo juum ci jullik farata ñoo bokk àtte ñoo ko bokk ba mu des ci la loo xam ne sëñ bi indi na ko ci aljawharun nafis juróom benn béréb la wuteek moom juróom benn mbir ci julli farata ak juum ci jullik farata ñoo bokk nuñ cee doxale ba des juróom mbir yi nga xam ne aljawharun nafis andi na ko bokk na ci juróom benn yi sax mën nañ koo tudd mooy kii naafi la bu fekkoon dafa fàtte jàng faatiha ba rukkoo bu ko fàttalikoo day wéy rek day wéy àggaleeg julleem rek balaa sëlmal nag mu sujjóot te bu doon farata du def noonu bu doon farata day dëppaat ndax na faatiha des wala boog day indiwaat beneen ràkk day indiwaat beneen ràkk ndax faatiha farata la ku bàyyi farata ci fa ci jullik farata moom day indiwaat beneen ràkk bu ko wuutu bu dee naafila nag du ko indiwaat waaye day sujjóot balaa sëlmal kii naafila itam bu fàtte woon a jàng lum toftal ci faatiha ci alquran mu fàtte ko wala fu ñu waroon a jàngee ci kaw mu jàng ci suuf wala fu ñu waroon a jàng ci suuf mu jàng ci kaw loolu ñett la yooyu yëpp bu dee la dara du ko ca war bu doon farata sujjóot da ko cay war bu dee naafil nag dara du ko ca war jàng faatiha rek yem ci bañ cee teg lenn ci alquran ci la ci ñaar ràkk yu njëkk ñaar ràkk yi dara du ko ca war waroon wax ci kaw mu wax ci suuf wala waroon a wax ci wax ci kaw ba tey du ko ca war ci naafila juróomeel bi mooy kii la it bu fekkee dafa jàng dafa def ñaar ràkka naafila ñaar ñaar lay doon mu def ñaar waroon a sëlmal waaye bañ a sëlmal jóg jóg di def ñetteel ba rukkoo ba noppi doo a fàttaliku ne man kat ndake ñetteel laay andi nii boobaa day bi bi bi bi muy laata bi muy laata rukkoo bi muy laata rukkoo day dellu toog taaya te bu sëlmalee mu sujjóot bu dee ginnaaw rukkoo bi la nag day wéy dolli ci beneen ràkka muy ñeenti ràkka te bu balaa sëlmal mu sujjóot bu dee naafila juróom-benneel bi mooy kii la bu bàyyee farata ba sëlmal door koo fàttaliku ba mu yàgg sax boobaa dara nekku ci day day bàyyi noonu rek te bu doon farata nag bu fàttee bu demee nii moom day julliwaat fàtti na farata ba sëlmal ba mu yàgg mu koy door a fàttaliku moom day julliwaat. bu dee naafila nag daal du ko ci nekk du sujjóot def dara day dem rek sëñ Cheikh. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax jigéen joo xam ne day muuru boroom këram ndax dagana mu dem aji mag. déedéet jigéen ji muuru moo xam moo xam day muuru moo xam day jàpp yidda rek mooy yidda rek daal yidda joo xam ne yidda pase la. wala yidd ak borom këram faatu la yidda ju mën doon rek ku ci nekk sañu te tukki te aj ci tukki yi la bokk kon sañu te aji sañu te aji bu fekkee bu fekkoon ci yoon wi te soreegut sax bu doon aji te soree gut sax borom këram faatu daa war a dëpp bu demoon ba sori nag moom mën naa bañ a dëpp kon bi mu demagut moom du faatu ba noppi mu fi jóge di aj walla ñu fase ko ba muy nekk ci idda ba noppi di fi jóge di aj bu ko defee nag aj gi dana wér waaye dana def bàkkaar ba aj woon aj gi dana wér waaye dana def bàkkaar sëñ Cheikh euh, laaj bi ñu mujj rek suñ Cheikh naa mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit boo xam ni dafa nekk ci réewum jàmbur bu génnee asaka mu mu jël asaka ji yóbbu ko ci ab dëkkam ah déedéet déedéet asaka yonent bi bi muy yónni Muaaz yaman dane ko na nga xamal waa yaman ne buñ demee ba nangu la yi war a jiitu da leen xamal na yàlla farataal na ci ñoom asaka yoo xam ne day jóge ci ñi am ci ñoom di dem ci ñi amut ci ñoom ak ci alquran tam yàlla loolu wax yonte bi xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mooy kon asaka béréb bi nga xam ne fi la fi la ware béréb bi mu ware fi lañ koy joxee béréb bi mu ware fi lañ koy joxee bu fekkee ñu ko yeyoo ña nga fa bu fekkee ñu ko yeyoo ña nga fa kon ku nekk ci réew mu dul réew mi itam waaye fam nekk fala amee alal ji asaka war bu fa amee ñu ko yayoo foofa la koy joxe bu fa amul ñu ko yayoo nag mu doon seet feneen wala xamu ko walla am na fi ñu ko yayoo mu jox leen ci waaye am ci lum jëlit joxe feneen waa ñu dara waaye nag jéggi leen mooy mooy lépp mu joxe ko feneen wala la ci ëpp mu joxe ko feneen loolu moom jaaduwut ndax alal ji fi mu juddoo fi lañ fi la war joxe asaka ji asaka ji itam mën nañ leen cee jox nag jox ci ñeneen waaye waruñoo jël lépp yóbbu feneen walla ñu jël la ca ëpp yóbbu feneen li ci ëpp moom nañ ko joxe fi nga xam ne fi la asaka ji ware boo amee luñ ci jël nag yóbbu feneen mën naa bañ wàññi dara bu demee noonu waaye waree su leen koo jéeg jël daal sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna xanaa ñu bàyyi rek nga tàggu ndox dama waxtu yi mat na sëkk tàggoo gi de xam naa jéggulu jéggul lay doon mm-hmm. ak ñaanit eh, yàlla boole nu musal ci lii mu wàcc ci àddina sëpp mu jaaxal ñépp ba soppi dundinu ñépp ñaan ko rekk mu teggil nu ko ci ni mu gën a gaawe ba nu dellu ci nanu xamoon àddina sépp dellu ci nañ xamoon nu ñaan ko koor gi itam li mu ci diggee mu defal nu ko dellu ko ay yoon yu nuy fekkee ci wér ak uk tal di jéggulu ñëpp nag wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Cheikhuna Mbacké Abdoul Wadoud moom lañu àndaloon ci ñaareelu jotaayu fatwa ci jotaayu kooru ren gi ñu koy sant ci turu daayira muxaddamatul xidma ci taxawaay bi mu taxaw ak leeral yi mu indi ci laaj yi nga xam ne moo bàyyi bàyyikoo ci mbokk yi ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan sunu borom mu dëgëral ko te kàttanal ko te guddal fanam te barkeel xam-xamam euh, suba incha allahu ñu ngi fas yéene waxtaane naal bi nga xam ne Serigne Mouhamadul Mountakha naal na ko ci wàllu jàng ak jàngale solo sim am ak yi nga xam ne ñoo koy composé yi tax mu am loolu nag Serigne Sam Bousso Abdourahman moom moo ko war a taxawee suba incha allah ñu ngi koy fàttali mbokk yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax. niki noonu ba tey it képp koo xam ne am na ay laaj yu mu bëggee indi ci jataay bi moo xam ku toog këram la di topp jataay bi ci rajo bi wala ci tele bi wala ci internet bi mën naa ne ay laajam ci numéro whatsapp yi ñuy joxe. ba ca jiitu mooy 78 295 24 77 wala 77 678 57 66 wala 77 585 17 55 yooyu ku ci yónnee sab dina agsi bu ko defee ñu mën koo jottali borom xam-xam yi ñu indi ci ay leer yu mat sëkk kon ñu ngi delluwaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiix ak ku mucc wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah.